du Abdou Khadir Diène ñu gën koo xam ci Djily Diène ndaw li génne ci école yi al azhar yu Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacke ibnu Xaadimu Rasul tey jii di yeewoo ci université Cheikh baam ba ngir wéyal am njàngam bind ab livre ci sew sewi bindub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul livre boobu mi ngi ko tuddee na Jawaahiru Nadim fi Balaaxatil Xadim. inspiré mooy li war a inspiré ñëpp rek mooy adduna bi nga xam ne dafa jaxasoo ñu ciy dund te kenn mënul teg baaraas sa diggante ak doomu aadama parce que mondialisation bi dafa am nag. ci biir bind kilifa dafa jar ñu jàngataat ko approfondir ko xóotal ko génn ci li nga xam ne dëgg-dëgg moo doonoon yéene ki ko doon bind. mu nekkoon mbir moo xam ne nag yombul woon dara ci moom ndax bariwaanu lu ñuy gis kuy bind ci sew sew yi waxi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. jafe torop comme ni ngeen ko yaakaaree ndax euh, première difficulté bi ñu ci rencontré mooy le fait que nit bindutoon ci li jiitu nit bindutoon ci retour bi Serigne Touba kon yow boo bind doo am référence nous a fallu a xool. li nga xam ne moom lañ jot a am ci as xam-xam wéeru itam ci bind Serigne Touba yi jéemal def benn lenk benn benn benn maanaam daal jéem a lëkkale ñaar yooyu ba xam lan la ñuy jox. Serigne Maam Mor Mbacke daa mi nga xam ne ñëwoon na ci cérémonie boobule di fësal mbégteem waaye itam yéemu gi nga xam ne yéemu na ko ci livre bi. waaw waaw loolu li ma ci wax rek la mooy livre bi dañ ko gis rek muy livre boo xam ne dafa raar ci ay ci wàllu googu wàllu. wàllu wàllu recteur yi mooy loo xam ne ci wax la ci bu dee ci wàllu arab sëñ Touba dafa bind comme sëñ Touba dafa bind ci wàllu boobu nag te bind ci lu am solo te mosuñu gis boobu te muy loo xam ne dañ ko soxla fi mu parce que tamit lu bari bi muy wax ay waxam di ko nattali te duñ xam la ci biir moo tax nag bu ñu gisee muy jeune ba pare di bindee noonu moom tax ñu ñëw teewee pour encourager ko. ginnaaw la moom Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada di fësal jafe-jafe yi nga xam ne nii moom moo am ci biir université yi nekk ci réew bu Sénégal yan saafara lañ ci war a jël. waaw ma ne la barki démb rek ñoo ngi doon xoolaat suñu règlement intérieur di ci incité pour ñu xam ne kuy jàng jàng du lu du lu du yomb du lu neex fokk pour xam-xam la kooku nag boo ko dee def il faut nga bàyyi xel ci yu bare bul bul jiital sa sa sa sa sa sa xel luy jiital sa bakkan mais day jiital sa xel waaw bu ko defee lu bari mën nga caa bañ àggante waaw loolu boo ko jiitalee xel rek ci jàng ñaareel bu bari dana bari loo a àgg. jamono ji jiili ne livre boobu la ci ginnaawam la nekk ndaxte mi ngi gëstu ci yeneen yoo xam ne nii gën naa xóot waaye itam gën naa sew ngir mën caa bind yeneen livre waaw bu baax a baax parce que moment bi may wax ak yow maa ngi yeneen recherche parce que li nga xam ne mooy livre bi mu bindoon muy rhétorique dama ko jëloon teg ko muy muy mu nekk ci premier rang bi dama jàppoon moo gën a ñor waaye foo fekk priorité itam am na lu ci toppaat ah, dañoo am ordre ki nga xam ne moo jiitu woon ci te moo war ci bind moom laa jàppee woon rhétorique léegi loolu weesu na ñu ngi yeneen phase parce que Serigne Touba a moom géej la dafa yaatu Euh, niñ xoolee rhétorique yeneen yu gën a xóot rhétorique sax mën naa am liñ ma ne comme rhétorique weesu na moment bii may loo xam ne bu ko bindee bu soobee yàlla nit ñi dinañ ci attirer attention te dina gën a waram dina gën a mën a wane doctrine bi nga xam ne moo doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ndawul étudiant li di jiili jenn nag di li nga xam ne nii livre bi am na ko ki ko war a lire Jawahirul Balagha joyau du compagnon Jawahirul ko bind dans le but ki nga xam ne mooy dox livre bi mën di ko wéttali man di ko wéttali ba saa su mos benn problème taxawee ci kanamam rek bu wéeroo ci euh, doctrine bi nga xam ne moom la ñuy développé ci ci ci livre bi mën a gis yoon boo xam ne dina ci mën a gindi